aw tiis gu rëy xewee ci VDN bi ñaari néew ñu fekk ñu tëral leen am ñu ci tàggalikook seeni cër ci wetu victime yi la nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci bile accident ak camion nekk fa bile camion nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom la ñu waxal mooy camion bi andi bile jëyee c'était devant moi man maa ngi woon ci beneen voie bi quoi tombé ñi camion bi mi ngi jugee ci voie bi di ñëw am na benn prado bu nekk ci kanam prado bi nag doon may ñi pour léegi kii ak collègue bi ñu àndoon di jéggi ak benn grand quoi léegi bu leen parado bi mayee ñu jéggi ci la camion bi ñëw nag fël parado bi dugg si diggante suuf si nii fekk leen fa ray leen après si la benn femme bi daanu nag camion bi jaar ci côté am mais ñaar ñi moom sur le coup leen rey après nag si la daw chauffeur yi wàcc daw ak ñaari apprenti ñu ñu dàq ji leen jàpp aprante bi ak chauffeur ñaari nit faatu ci bile accident kenn ki di jigéen di wuyoo si turub Alice keneen di ku góor ki nga xam ne xamaguñ kan la ak fi mu jóge ñu ñu fa dajal li ñu xam xamle rek moo di seeni at weesuwul ñaar fukk ak fanweeri at. dafa démembré daf ko daggate en plusieurs parties ñu ñoo dajale corps bi ñu ñoo ko muur yëpp def ko yëpp. Ah, ku jigéen la ku jigéen la bon xaw nu mu tudd xam naa ko mais xaw ma turam nu mu tudd parce que cinq minutes avant mu may romb di ma tooñ ma koy naan tey niyoowuloo doo niyoo tey mun ne ma séesee niyoo naa kay. ay atam peut-être dans les trente une trentaine dans les trentaines Kougour qui ki bon jeune là, littéralement dans les vingtaines maximum trente ans moom tamit ñoom ñëpp ay xalé lañu. ci jëye bu reuy bi xew ci VDN bi ka ci jot recc mi ngi wuyoo ci turu Mozali Manga nit ñi wër ko. deux morts deux morts et un blessé blessé bi grawul. blessé bi man xamna ko bu baax Grawul xamna choc bi la rek peur bi affaire yooyu. non ba ñu ñëwee nañ ko ñu bandal ko foofu noonu. waaw mais bon xam nga parce que dafa daanu mais mom dara laalu ko violence ki kii bi xam naa moom moo tax dafa daanu ah dafa daanu mais dara jotu ko. xam naa ko bu baax touram la xamul mais jëkkër ji ñoy nekk chaque jour pap Samba. jëkkër ji mo soloon lu gris mo soloon lu gris li waaw. ak lan mais bien sûr. chauffeuru camion bi waral biye jege ànd ak ñett apprenti am jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon lii di naamaar ba tamit ñu daal di koy yóbbu ci fi nga xam ne moo di gendarmerie